laylatul mawlidi lasi kana lidi ne sororon bi yawmihi wa ziha salli ya rabbana wa sallim ala ma هو للخلق رحمة ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وضحاه صل يا ربنا وصل ولما هو للخلق رحمة وضحاه ليلة ذات المولد الذي كان لدي نسرور بيومه وضحاه صل يا ربنا وصل على ما هو للخلق رحمة وتوالى البزر الهواتف أنقار ولد المصطفى وهاك الهناء te waa néeg boobu boo ko waxee bi néeg bi gi bàyyi jublu mooy Seyda Roqiya Jaw mi nga xam ne Biraan Jaw mooy baayam di euh, frère ci euh, Seyda Fatim Jaw mi nga xam ne tamit moom moo jur Fat Jaw mu jur Seyda Ndayda ak euh, Seyd Biraan Jaw mi nga xam ne moo jur suñ maam Roq Jaw mu jur Seyda Aïchatou Sarr ak Cheikh Mouhamadul Kourachi ak yeneen seeni rak Baye di saxal ci kayit ne daf leen a bëgg ci biirgatan kon loolu euh, sant yàlla la ba bokkee ci baay ba pare sa waagu wa nga bokkee it Baye wane ne waagu woowu moom dafa leen a bëgg kon googu rek doy na may rawatina nag nga ñëw bi nga ñëwee fekk asaas boobu yëpp amoo dara goo ci taqal lu dul yokk ci loolu mbaax sëf ci mbaax Seyda Aïssata dafa ñëw fekk mbaax moomu waaye terewut mu góor góor gu moomit ci mbaax ci dimbage jaamu yàgg yi ci jàng ak alquran ci jàng dawaaw yi ni Mawlana Cheikh al Islam ak Haj Ibrahim Niass nekk ak nit ñi nekk bu rafet ba dem barsax fekk ji waajuram fekk ji Cheikh Tijaan fekk ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon kooku jar naa fàttaliku jar naa ñaanal ndax ci athar dañuy wax ne a zikri saalihin tatanazzalu rahamat bu ñuy tudd nit ñu baax ñi di ngeen fàttaliku eh, yërmande dafay wàcc te Sayda Aïchatu Sarr kenn amul benn sikk ne ci saalihiina yi nga bokk waaye ci ñi gën a kawe ci saalihiina yi nga bokk kon ñu ngi koy ñaanak ak yàlla fa mu nekk gëna ko fi mu jóge yàlla kaweeg maqamam ci àjjana barkeel njabootam yokk leen mën-mën saxal jotaay bi saa su nekk muy gën a yokk saa yuñ fi ñëwee rek muy gën a yokk ñu koy gën a fàttaliku di ci bës bés bi di gën a teral jugit yi di gën a dimbale gan yi di gën a def ay sarax yu bëree bëri yoo xam ne dañuy ñaan mu jëm ci misaani xasanaatam comme ni ko Maam Baay di defee ñu ngi koy ñaan ak yàlla yàlla yokk ko dooge yokk ko mën-mën ba taxawaay boobu mu am mu continuer di ko am moom ak mboolee mi magam ak mboogeem mi rakkam ñu ngi nuyu beneen yoon suñu nijaay Cheikh Mouhamed al Qourachi di ko jaage suñ maam maam Roqi Jaw mi nga xam ne moo fi jóge di ko jaagee jugit yëpp di ko jaage caagi ba bàyyi yëpp di ko ñaan ak yàgga euh, nekk mu fekk fa Mawlana Cheikh al Islam fekk fa Cheikh Tijani fekk fa Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla guddal fan yi njaboot gi mu fi bàyyi rawatina Cheikh Mouhamed Kourachi mi nga xam ne sag la ci xadra bi xawaay bi mu am ñëpp xam nañ ko ñëpp gis nañ ko yàlla yokk ko mën-mën yàlla yokk gudd fanam may ko wér ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi tatagal Cheikh Mouhamed Mahi Agui Cissé mi nga xam ne agsi nag léegi ci jotaay bi Moustapha ci man ngay déglu de ab sëriñ lay jàng yaa guddal seen fan yaa nga may ngeen wér may ngeen kàttan bañ yàgg taxawee bés bi di ndokkeel Mame Baye Seck ci taxawaay bi di ko ñaan ak moom it beneen yoon di ñaan ak Seyda maam Roqi jaw mi nga xam ne moom it mu ngi koy rendre hommage ci bes bi ak bàjjanam bàjjan na Seck bi nga xam ne maam Baye wax nañu bu bëri keroog ci mbaaxam ci Dakar wax nañu tamit nañu gi muy doon bàjjanam baax na bëgg na Baye taalibe ga ba moom sax moom bàjjanam nga waaye moom ci yaayam nga ko xamee xameewu ko ci papaam kon kooku tamit ñu ngi koy ñaan ak yokk weeram yàlla yéegal ko ca àjjana yi gën a kawe mu fekk fa sëriñam Mawlana Cheikh al Islam ak Hadj Ibrahim Niass euh, kon kàddu yooyu rek laa ci amoon dama ne jarul may guddal ndax say kilifa duñ toog ngay wax waaye ñu ngi gërëm Cheikh mambaay di ñaan ak njaboot gi di ko ñaanal di ñaanal suñ kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk di ñaan yàlla ñu yàgg fekkee bés bi teewee ko ay at at yu bëree bëri yàlla wàcce ci ñun barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke juddoom gi barke weeram bi nga xam ne ci nga judd di ñaan yàlla yàlla nangu gépp guñ fi ñaan nangu kaamine alquran yi nga xam ne moom ngañ jàngal Seyda Aïchatou Sarr wàcce ko ci ruuxam ak ruuxi Seyda Mame Rokhaya Diaw ak bàjjana Amina Seck ماذا كم غايب عزيز والسلام عليكم ورحمة الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار وصحابته الغر الميامين mbokk yi ñu ngi nuyu jotaay bi yëpp di ci jiital kilifa yi nga xam ne ñoo teew fii Cheikh Seydil Arabi mu suñ bàyyi Xaaj Mouhamad Zeynab présenté nañ ko waaye mu ngi nii toog Euh, imaam Cheikh Mahi Cissé moom itam mu ngi nii topp ak yeneen doom yeeg jarbaat yi yëpp nga xam ne teew nañ fii tey nga xam ne seen teewaay ci période su gàmmu gi dafay dolli yaakaar ci ñaan yi nga xam ne ay doom yu baax ño koy defal seen waajur wu baax moo tax daanaka kalima bi kalimat euh, ndokkeelante rek la ndokkeel nit ñi ci gàmmu gi nga xam ne euh, dajale na àddina bi tey fii ci Medina di ndokkeel itam waa Medina di ndokkeel ñi ci def lu baax yépp te ñu ngi koy dégg ñu ngi koy gis loolu it xusuusi la boo xam ne yàllaa ko may ñi nga xam ne ñooy def loolu dafa am ñaari kilifa yu nekkoon ci gouvernement bale génn daje keroog suma kër ñuy waxtaan mën a leen yéen jaroon ngeen di jaaxle gis nga seen doom yi toog du ñàkk ci àddina bi duñ tiit waxuma yéen du lu ngeen liggéey nag waaye lu seen bàyyi liggéey la te période bi ñuy liggéeyal bàyyi loolu boobu lu jafe woon la te bàyyi moo ne inna alladina xadamu ni naalu muraadahum saadatan waalu te jamono boobu ñuy jaayanteek bàyyi ci liggéey yàlla leen ko mayoon rek nam mayee woon Seydina Ousmane gannaaw ñetti fan yi yonantu or ba ngoon amul lu mu dogee mu continuer koor gi ba muy ñetti fan Seyda Aïcha moo sàcc oo benn nit mag u gone yónni ko ci usmaan ne ko demal ne Seydina Ousmane yónnante ngi ci ñetteeli fani or bu dog jotee du am lu mu lekk Seydina Ousmane jël gilem sëf ci seen uh, yàpp yooyu ñu daan weer muy tiis sëf ci blé sëf ci lu nekk lu ne mu def ci gilam yónnee ko kër yonant bi ma ne leen Ousmane bi muy def loolu yàlla mayoon yonant bi moo gënoon yomb ci moom mu may Ousmane parce que yonant bee ko gënal Ousmane mais Ousmane la doon dimbale pour mu def ci yàlla moo tax mu jaarale voie bi foofu yéen itam seen bàyyi jaayante nañ ak bàyyi bu yàgg ci jamono bu jafe ñaq yooyu ñu doon ñaq dana leen topp dana topp seen doom dana topp seeni i sët jarut sax ngeen di jaaxle ci ci àddina bi eh, kon ñi ngi ndokkeel ñi ñëw ci gàmmu gi yépp di ñaan yàlla ñi egsi ci jàmm yal na leen fi yàlla sàmm nangul leen seen éene bi ñuy jóg di ñëw parce am na réew yoo xam ne jënd fa billet pour ñëw Dakar ren lu jafe la ci euh, addina bi fi mu toll léegi ñëw ñu ñëw nag yal na leen yàlla may seen càkkutéef may leen sax lu ëpp seen càkkutéef sàmm leen ci Médina sàmm waa Médina yitam itam ci gan yi ñëw parce que lu nekk mën na am ni ñuy ñëwee di indiwaale dara noonu la ñuy ñëwee indi leneen itam waaye yal yàlla sàmm ñi dëkk ci dëkk bi ci li fi ñëw yëpp ak luñ mën a ànd ak ba nga xam ne dara du leen ci dal dara du leen ci fekk di gërëm mbokk yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi bokk maam baay mii mais nekk ay xaritam mu décidé moom ak ay rakam pour ñaanal yaayam ñoom ñëpp ñu ñëw fekkee la si ko loolu dafay dolli yaakaar ci ñaan gi ñuy def parce que ay nit ñu sell lañ jógee ci ay nit ñu sell ñii ci wasifa lañ jógee ñëw ci jotaay bi ñii ci julli ngee lañ jógee ñëw ci jotaay bi loolu yëpp nag buñ ko booleeg juróom-ñaar fukki xatma alquran yiñ def amuñ sikk ne yéene biñ bëggoon ci ñaanal seen yaay e, dana ci jot ñu ngi leen di ñaanal ñoom itam e, si di wax na léegi ne seen yaay ku dëddu woon àddina la te muy dëgg waaye ñu ngi leen di ñaanal ñoom itam liñ bëgg ci àddina bi yépp yàlla may leen ko Cheikh mu Baye Mbaye mos nañ di waxtaan mu ne moom dafa soboon rek posé Baye benn question ne bàyyi na ko dañoo wax ne ñun amuñ wërsëg bàyyi na ko ko wax loolu <laughs> ah mu ne ko am na ñu koy wax de mu ne ko déedéet suñuy maam ak suñuy bàyyi ñoo itteewutoon loolu waaye yéen ñii ku ci itteel wërsëg da nga ko am euh, kon loolu xaj na àddina soppeeku na ba fi mu nekk nii na mag ñi daan dawee wërsëg ak alal mën na am boo amee wilaayatu sax te amoo ñaar dërëm fi nekk nii pour wilaayatu gi mën a nekk lu nit ñi nangu dana jafe kon nag li ñuy ñaan rek mooy yàlla ak lu mu fi mën a sot sotti ci wërsëg mu tënk ñi ci li nga xam ne ci la tënkoon suñuy baay tënk ci suñuy maam eh, metti na nag période bi jàll ni yëpp wax naa ko démb ci conférence bi benn conseil bu fa ñëwoon bu premier ministre Ousmane Sonko taalibe Baay la ma ne ko nag Sénégal toujours dañuy raté rendez-vous cinquième président Sénégal tànnagum na leen muy Abdou Diouf Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade Macky Sall ak président Diomaye bii toog waaye à chaque rendez-vous dañuy raté pour xam kan mooy Cheikh Ibrahim waxuma en tant que sëriñ mais kan mooy Cheikh Ibrahim pour mën leen a dimbale ñoom ci seen liggéey Kwame Nkrumah dawtoon jullit 63 bi ñuy taxawal euh, OIA pour ma dafa ñaan bàyyi ne ko dañ laa bëgg a invité nga prépare benn discours indi ko ci wax dal Ifriqiya su sommet bi jeexee discours boobu danañ ko traduire ci langue africaine yépp Hausa Yoruba Igbo nangam nangam Senghor ne du fi am parce que réew mu nekk benn président fa jógee Sénégal ñaari président duñ fi jógee kaddu Sénégal man maa ko amee kur ma daal di ree ne ko yàq nga chance boo xam ne du yàgg dara ci kanam Afrique dana ko rëccu ma ne leen loolu ba léegi at mu jot rek ngeen rëccu ko walla cinquant ans yu jot buñ élire keneen rek ngeen raté loolu te bàyyi ku leen mën a dimbale la ci situation yii Afrique nekk président Diomaye moom lañ chargé mission pour mu dox diggante CEDEAO ak AES mooy ñetti réew yi génn ci CEDEAO muy Mali Burkina ak Niger waa Diomaye moomu pour mu dox mission boobu bu ci boole woon ñenn ci waa kër gi rek mën na ko faciliter tâche boobu ba nga xam ne politiquement moom du ko du ko yëg sax même Euh, nu mu tuddati euh, réseaux sociaux yi attaques yi ñu koy def yëpp du ko jar parce que dafa am lu ñuy wax diplomatie populaire mooy ay diplomate yoo xam ne nekkuñ ci biir état mais état daf leen di utiliser loolu Sénégal rek laa gis ne du ñuy jëriñoo genre diplomatie boobu. maanaam ko boo demee waxal sa mbokk yi nga ne leen Baye Niass mën na leen a dimbale na mu ko doon defee démb. mën na ko tey Kabir Faye mos nañu nettali am naa Cheikh Sidi Arab mi dana am information boobu Senghor dafa jàmbat bàyyi ne ko am na benn parti ci Sénégal dañ ko tayle woon te créance bi jot na buñ ko fayut Sénégal dafay perte suuf soosu yëpp bàyyi na ko suba ci diggante timis ak géey na nga yónni ay ndaw ci man ñu yónni leen ñu ñëw Kabir Faye mu ne ñoom la bàyyi wax rek ne leen dugg leen ci néeg gi mooy fi ñu daan def kees yi pomam yooyu ak orange yi dem leen ngeen indi kees yi nekk foofu ñiy roñ kees yi di génne rek bu am kenn ku sàcc xool kees yi nekk kees yi yëpp dollar la def te ñoom ñu ne yëguñ kañ la fa dugg loolu la yëkkati teg ko ci loxo Senghor pour ñuy sauver créance boobu nga xam ne bu amutoon Sénégal dana perte parti boobu euh, du politique nag parce que kenn du wax ne soxlawuma suma état waaye état bi itam na jàng Sénégal na jàng Médina na jàng Baye na jàng ñi fi nekk bu leen déglu ci renseignement yi parce que renseignement yi amuñ sikki ne li ñuy wax ci yenn kër yi dana gën li ñuy wax ci yeneen kër yi mais boole buggee jëflanteeg ñoom jàng leen ñoom directement yow ak ñoom su boobaa da xam ndax ñii mën naa leen jëriñu ci intérêt Sénégal mën naa leen jëriñu ci intérêt Afrique te yaakaar naa ne loolu mën na nekk jël na not dana ko jotal du ko jotal de toute façon liñ ko waroon a wax euh, wax nañ ko kon ñi ngi gërëm mbooloo mi teew fii yépp ci teewaay biñ teew fii ki participé ci kaamil yi alhamdulilah ku fi jàng benn fatiha itam alhamdulilah di ñaan yàlla yàlla jotal li fi jàng noon yëpp ak liñ fi ñaan yëpp ci een xale yi yàlla jotal ko seen yaay muy Seyda Aïchatou eh, li mu ragaloon nag ci àddina bi ba dëdd ko eh, yàlla na ko ubbi ci gone yi te duñ sànku bàyyi daan na ne fii ba ba ñuy dajeeg yonant bi gisuma fi ñàkk waaye damaa ragal bew loolu répété na ko ba sonn mag ñaa ngi fi toog gisuma fi ñàkk mais dama ragal bew te loolu dafay am léegi bi may ñëw dafa am benn xale ci xale yi nga xam ne du benn classe bi sax ci Medina dañ daje ci kaw yoon bi wetu kër addis oto bi dafa xaw a yaatu xaju moom mu amee jakarta bugg a jàll na seet na seet xamut fu muy jàll mu dóor oto bi ma ubbi bunt bi wàcc ne ku dóor oto bi yow mu ne ma déedéet ma ne ko loo ciy fen yow bi ngay dóor maa ngi lay gis waaye xam nga loolu genre bew la yow ci dëkk bi nga dëkk waaye même bu doon oto benn nit la sax loo koy loo koy dóore parce que yow yàkkamti nga rek pour dem kon yàlla nañu yàlla sàmm sàmm suñu pas-pas yi sàmm dëkk bi sàmm ñi jublu dëkk bi sàmm ñi am yéene pour ñëw fii ci dëkk bi yàlla may leen li nga xam ne yéene nañ ko pour am ko fii ci dëkk bi itam yàlla may leen ko suñ mbokk yi nekk ci fitna ci àddina bi benn soudané oona ma di ma wax yoon bi ñuy mën a jaar ñoom pour gàmmu si man dem naa ba ne leen sax yéen te ngeen a topp ngeen jàng ay salatul fatiha ak yooyu addiyal ko bàyyi muy seen gàmm parce que Éthiopie dafa tëj seen frontière bi te Éthiopie rek lañ mën a jëlee ji avion dañuy obligé jaar ci suuf ci montagne yi jaar Érythrée yi jaar foo xam ne euh, waxuma sax seeraayu billet bi mais fii ñu war a jaar pour egsi Addis am na ci ñoo xam ne sax bala ñoo egg si gàmmu gi paas te loolu fitna bi nekk Soudan rek moo ko indi nañ ñaanaale ci jotaay yi ci kaamil yi ci aîné yi yàlla jeexal fitna boobu fitna bi nekk ci Moyen-Orient itam muy Charqul Awsat diggante Israël ak yenn ci arab yi comme Liban comme Hezbollah comme Hamas ak digganteem seen diggante ak Iran yooyu yëpp erreur mën na ci am mu taal fitna boo xam ne àddina bi yëpp dinañ ko yëg comme ñun amuñ dara lu dul ñaan nañ boole ci suñ ñaan yàlla fay fitna yooyu bi nekk Libye yàlla na ko fay bi nekk Syria yàlla na ko fay bi nekk fii ci Mali Burkina Niger parce que fépp am nañ fa njaboot fitna yi ñu fa taal par erreur nañ ñaan yàlla ci guddi yi ñu toll amuñ sikki ne yàlla du ci delloo ñaan yàlla jeexal fitna yooyu may ñi itam Afrique mën a dajaloo ni nga xam ne noonu la ko bàyyi buggee woon tubaab yi duñ ko nangu waaye xeex ak ñoom rek lay laaj mais xeex bi itam du xeexi arme xeexi xam-xam lay doon Paul Kagame bi muy génn ci langue française étudier na ko lu dem ci douze ans conséquences yëpp diggante Rwanda ak France xool na ko ba xam ne mën naa nekk dafa xëy rek tappaas français yi ne moom léegi ci commonwealth la bokk mooy pays yi làkk anglais bokkatut ci ci francophonie te pourtant réussir na ko pëppalam dimbale ko itam fal nañ ko ba 2037 kooku amul problème yi dem élection yu ma xamut yi ñu ngi gërëm ñi fi teew ñëpp di gërëm kilifa yi teew fii ak kilifa yi nekk ci kër yi ñoom ñëpp ku ci am tawat yàlla na ko yàlla saafara ku ci am soxla yal na ko yàlla faj ku ci am jaaxle yal na ko yàlla dindi ci barke yonant bi Cheikh Sidil Arabi ngi ni Cheikh Mahi mi nga xam ne moo amee intérim bi remplacer magam Cheikh Tidiane Cissé moom it yal na ko yàlla dimbale ci mission boobu ni mu ci dimbale woon seen mag Hassan ak seen baay Seydi Ali Cissé ñi ngi ñaan yàlla yàlla dajale yi dëkk bi bañ mën a jublu ci projet yoo xam ne projet yu mag yu bàyyi lay nekk mbooloo mi fi mu ne foo leen natt àgg na fa youtube bi ñu ngi ci gis ñi nga xam ne ñi nga xamadi ba di génne ay wax ma ne leen wax yi du ñi ñoo xamadi mais ñun ñoo def faux pas ci dañu waroon a organiser woo gis naa benn xale sax mu ne taalibe Baay la xaw ma nu mu tudd xale yi seetaan nañ ko ci youtube muy wax ci tribune ci mbaar mi tribune bi ne kër yi Sénégal yëpp ñu ngi tabaxal seen bàyyi ay jumaa yu mag yéen ngeen yi tabaxal seen bàyyi mbaar ma ne ko yow da nga dof bàyyi bi muy tabax jumaa ji kër yooyu zaawiya sax nekku ko moom def na li ko war fi mu ne ñun ñoo war a def li ñu war yal nañu yàlla dimbale bañ man loolu yëpp ci zahir ak ci baatam ci maal ak ci sécurité ak lépp asalaamaaleykum wa rahmatullah ci ziyaare Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahim Niass ci dakaar dafa def benn discours boo xam ne ci taalibe yi waaye Dakar ñu bëri discours bi dafa leen a neex man toog nag ñu toog naag ñu bëri ñu ne ma kii moom warut di noppi dafa war di wax waxtu wu nekk parce que lu bëri mën na ko leeral yal na yàlla yàggal la fi yal na yàlla wattu la te sàmm la te aar la ci sa barke baay Mawlana Cheikh Ibrahim kon mu mel ni jotaay bi ñi ngi wax rek waaye nit ñi ba tey ñi ngi ñëw ba dangay gis ne ñi nekk ci biti ñoo ëpp ñu nekk ci biir mbaar mi loolu yëpp nag li ko waral mooy jotaay bii nga xam ne ñu ngi ciy ñaanal suñ bàjjan Sayda Aysatu Sarr bint Mawlana Cheikh Ibrahim maam Baye mu ne moom ak ay mbokkam beneen yoon ñi ngi gërëm mbooloo mu fi teew yëpp di ñaan cheikh Mouhamadul Mahi Seyda Ali Cissé mi nga xam ne moo war a jàng xatmu gi ta jotaay bi mu ñaanal mboolem ñi fi teew te ñi fi teew ñëpp waa Madina lañ ñi fi teew ñëpp njabooti Mawlana Cheikh Ibrahim lañ maam Baye kontaan na bu baax mu ngi gërëm ñi nga xam ne dëgg-dëgg bu ootee ak lum xat xat parce que gàmmu gannaaw suba la waaye mu ne bu ootee lum xat-xat ñëpp danañ bàyyi seen soxla ñëw ku ci mel ni Cheikh Baye Si Tayib Mouhamed Niass Cheikh Nazir Seck Cheikh Moustapha mi nga xam ne moom la sant conférence bi mu def ko ak Cheikh Baye Seyd Nasir Cheikh Baye Hadi Cheikh Tidiane Seyd Hadi Neema ñëpp ak Cheikh Cissé Cheikh Mouhamadul Mamoun mu ne mi ngi gërëm ñëpp te mi ngi sàkku ci sëriñ bi muy Cheikh Mouhamadul Mahi mi nga xam ne amul benn sikki ne lum ñaan mu nangu rawatina ci weer wii nga xam ne ci lañ nekk muy weeru turandooram weeru yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa maa ngi seen sama bàjjan sayda nday ayda bint maulana cheikh ibrahim suñ bàjjan sayda jeena bakan bint maulana cheikh ibrahim comme ni ma ko waxee léegi ñi fi teew ñëpp boo leen doon tudd kenn par kenn kenn génnut maulana cheikh ibrahim kon balaa ñuy jox sëriñ bi maam Baye mu ne ñu jox xaaj malik mu tagg yonentu bi sallallahu alayhi ay bayt yu gàtt rek ahidumma salamu fa taqbalu amdahi wa taqbalu man yaxki alayhi salatu llahi ثم سلام فتقبل أمداحي وتقبل من يحكي ألما على البحر المحيط وتترك سواقي لا تجدي ظما لمن شكا ألما على البحر المحيط وتترك سواقي لا تجدي ظما لمن شكا فأعني حبيب الله طه محمدا أبا القاسم الهادي لمن قد تنسكا أمين إله العرش مركز سر به أم قلب العبد حتى تهتكا فملكته ذاتي ونفسي وروحا وأهلي وأولادي ومن بي تمسكا ولست أرى في الكون شيئا أحب سوى المصطفى المحمود فيك وعندك فوقت مضى بغير إنشاء مدحي وتذكاري لمحجوب الدار مدركا عليه صلاة الله ثم سلام تضيء لنا ظلما وترفع مشتاكا عليه صلاة الله ثم سلام تزحزح أعدائي وبوسي والبكاء عليه صلاة الله ثم سلام تورثني من فات ممن تملك عليه صلاة الله ثم سلام وتعلي على كل الملوك عبيدك عليه صلاة الله ثم سلام تنيل المنى ولتعطي للعبد سرك لما على البحر المحيط وتترك سواقي لا تجدي وما أني من شكا حق قدرهم رشدي ومهما يكن أمر فذلك مسندي بدا لي أن المصطفى الدهر مرشدي ومهما يكن أمر فذلك مسندي فغوث وغيث منجد ومكرم ومأوى لعاف وكافي وصنددي بدا وبقاء الأرض ظلم وظلمة فأشرقت الأرجى بطلعة أحمد وهذا أوان الخير منك فإنه تلاطم أمواج لشر مماهد فهل لك أن تسدي إلينا كرامة تحير أقول الكل يا خير منجدي فإن تولني منك الجميل فأهله وإن لم أكن أهلا فإنك مقصدي ومنك رسول الله نال خلافة أبو البشر الأسمى أبو كل مرشد ومنك خليل والنجي وروحهم أنيل مقامات على كل سيد كذا يشكر من قبلهم وسواهم ومنك سليمان حوى كل سودد ومنك أروم الفوز والفضل والجدى على رغم أنف من شنات وحسد ومنك أروم الفوز والفضل والجدى على رغم أنف من شنات وحوصدي وإن مرادي أن أنال خلافة على وفق ما أهوى بجاه محمد بلا سبب مني معافا ومصطفى خبيرا بصيرا هاديا كل مهتدي وأقضي لكل الأولياء مرادهم بلا كلفة في كل لغيب ومشهد وأهد الإمام المهدي الختم مرشدا له كل وقت في مجال ومرقد بذاتك يا ربي بسر صفاتها ونورك يا ربي أبي كل ما اهتدي بذلك يا ربي بسر صفاتها ونورك يا ربي أبي كل ما اهتدي عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب دم مروا كل معتدي عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب دم مروا كل معتدي حق قدره ومقدار العظيم alhamdulilah walsalaatu wassalaamu ala rasulillah sayidina muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahabati wa man wala qaa'il ida maata ibnu aadama inqataa amaluhu illa min salaas ilmin yuntafacu bihi aw sadaqatin jaariyatin aw ilmin yuntafacu bihi aw waladin saalixin yadcu lah wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yawmi ddin salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ayul jamul karim ñu ngi nuyu jataay bu tedd bi nga xam ne jotaay gën na koo bëri nit te gënu koo tedd tedd na ngir fiñ ko fase tedd na ngir jamono giñ ko fase tedd na ngir litax ñi fas ko tedd na it ngir sette yi nga xam ne nii yàlla tànn la leen ñi ñëw teewee ko ñu ngi nuyu suñuy nijaay yi nga xam ne ñu ngi ci jotaay bi cheikh Mouhamed al Qurashi cheikh Sayid al Arabi suñu yaay Sayida eh, Aïcha Sayida Zeynab Sayida eh, Mariama ñi ma gis ak ñi ma gisul ñëpp ñu ngi nuyu kilifa yi teew yëpp di ndokkeel ci bés bi di ndokkeel Cheikh Baye ak maam Baye ak magam ak kerakam di nuyu papam alxaaji Cheikhou sek di ndokkeel Cheikh Baye ci lii nga xam ne nii moom la def di nuyu suñ doom Cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ne moo méngu woon waxtaan wi ci wax ci ngëneeli Seyda Aïchatou Sarr binti Cheikh nga xam ne lii Cheikh Baye def nii mambaay Baye ñi teew ci place bi dafay tegtale ne ay yaayam xaritam lañ ay nijaayam xaritam lañ ay magam xaritam lañ ay rakamit xaritam lañ loolu nag moom sosu ko yaayam noonu la meloon ku ku ubbeekoon la këram ci Nigeria jaarukaay la woon boo xam ne ni njëkk Sénégal ñu bari foofu lañ doon daal mu nekk nit ku yaatu ku bëgg nit kon nag tumurankewul mu bàyyi ay njaboot goo xam ne dañuy jaar ci yoon woowu moo tax ñi ngi lay ndokkeel di ndokkeel say mag yépp ci jotaay bi nga xam ne moom nga fas nga xam ne eh, lu ci gën a kawe mooy jokku waajur yi gannaaw buñ fi jugee mbokk gi tim nga xam ne ni yaa ngi koy toppatoo bërki démb rek dama jàng benn téere am xadis ju ma taxawloo yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne inna bani fulaan laysu bi awliyaa ali lakin lahum rahiman sa abulluha bi bilaaliha wax ne diw ñooñ diw ak seen kër duuñ sax samay xarit waaye mbokk lañ yoo xam ne force ma tooyal mbokk googul li ca war a tooy danaa ko def léegi nag boo amee mbokk boo xam ne xarit la kon loolu ah, waxi nopp loolu ñu ngi sant yàlla ci loolu xasida yi kii jàng dafa ma eh, taxawloo ci benn bayt bàyyi de wax ne wa malaktuhu zaati wa ruuxi wa nafsaha wa ahli wa ahbaabi wa man bi tamassaka mu doon li ma yaakaar ndax Seydi Ali dafa ma sa wax Seydina Cissé rahimahullah radi anhum ne ko du ma nangu ngeen yàqu ndax sëriñ bi laa leen jox dama leen a sédd sëriñ bi moo tax du ma nangu ngeen yàqu bàyyi nag wax na ne ñun ñëpp yonent bi la jox wa malaktu zaati wa ruuxi wa nafsaha wa ahli wa ahbaabi wa man bi tamassaka loolu yaakaar ju mag la yaakaar ju mag la te ñëpp a ngi koy doxee ñëpp a ngi nokki pour dundal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañ xam baay xam ay mayam fi mu toll lépp lu da mën a dem ba mën a feggoog te saaxara indi xayru ahmada lu dul ku yonent bi rek tuuti na ci man te ku àggut ci foofu ñàkk àgg ci foofu rek moo tax àddina dañuy sonal moo tax niti àddina man ñoo sonal waaye koo xam ne ci julleem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam salaatan biha tasqil muluku hadaiqi maa ngi julli ci yonent bi julli goo xam ne buur yi danañ roose samay samay tool kon nag nguur ak àddina warul ñoo jaaxal la bi waxoon waxoon ne saxaaba yi lal faqra axsha aleykum duun ne ñàkk laa leen di ragal loo laay ragal ci yéen li may ragal kay yàlla may leen àddina ngeen xaccoo ci mu alag leen bàyyit bindoon na Seydi Ali Cissé benn leetar di ko wax ne ko lal faqra akhsha aleykum duun ne eh, ñàkk ragal lu ma la leen ñàkk fekk boobu daf ko bindoon leetar di ko ñaan pour mu garanté ko mu aj mu dem ba ci kanam mu ne xaaral ma fàttaliku ko mu ne ko waxal leneen waxuma benn aj aj aj laa wax waaye li ma ragal ci yéen duun ñàkk te waxoon na ko feneen ne gis naa ñi dugg aljanna joo xam ne dootuñ ci génn ba bu ñuy duggee aljannaay dëgg-dëgg gi loolu nag li ñu ciy dimbale rek mooy waxtu wu nekk nañ sax ci mbooloo moom yàlla nañu saxal ci loolu bëgguñoo guddal wax ndax wax ji ñu ko war a wax wax nañ ko waaye dañoo bëggoon a feeñal rek euh, euh, sant yàlla ci jotaay bi ndokkeel ñi nga xam ne ni ñoo ko fas nga xam ne benn kaamil soxlay àddina ak àllaaxira xañ na ci rawatina juróom ñaar fukki kaamil ci jamono ji nga xam ne jamono yëpp yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam moom waaye jamono ji nga xam ne moo feeñ ci la feeñ yàlla dana fiiral jamono jooju ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba du em benn jamono ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi ñaanal ñëpp ñu ngi ñaan yàlla gan ñëpp ñëw ci jàmm dellu ci jàmm yal na yàlla may ñu xol yoo xam ne nii dana teral gan ñi yàlla yàlla may ñu poos yoo xam ne dana teral gan ñi yàlla yàlla may gan ñi tim teggin goo xam ne nii xaj na Medina mën naa dugg Medina ba génn Medina te du fi yàq dara yàlla bu fi kenn yàqu yàlla bu fi kenn yàq yàlla yàlla nangul ñi gàmmu gi te lépp lum nangu ci suñ jëf yi baax yépp lépp lu ci yàlla nangu yàlla na ko yàlla def ci misaan xasanaati Cheikh Ibrahim mi nga xam ne dafa wax ne wali walahum yëg fi taalluqu daiman bi zeyli shafii lxalqi man ahsana sunan doy na ma doy ñi nga xam ne ñoo topp ci man ñi aju rek ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi ñi ma topp yëpp may naa la leen kon ñun moomeelu yonent lañ sallallahu alayhi wa sallam moomeelu yonent du yàqu du yàqu du yàqule yal nañu yàlla saxal ci loolu allahuma salli ala sayyidina muhammadin bismillahi rahmani rahim allah ahad allah samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi rahmaani rahiim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi rahmaani rahiim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi rahmaani rahiim qul audu bi rabbil falaq min sharri ma xalaq min sharri gaasiqin ida waqab min sharri naffaathaati bil uqad min sharri xaasidin ida xasad bismillahi rahmaani rahiim qul audu bi rabbi nnaasi maliki nnaasi ilaahi nnaasi min sharri lwaswaasi alxannaas alladi yuwaswisu fi suduri nnaasi min aljinnati wannaas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 radiallahu an saadatina abi bakarin wa omara wa osmana wa aliin wa talhata wa zubair wa saad wa said wa bi obaydata ibni jarrah wa hamzata wa abbas wa jaafarin wa aqil wa alhasan wa husain wa atmata zahra wa khadijata wa aishata wa an sairi ummahati almuminin wa radiallahu an ashab rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ajmain wa an التابعين وتابعي تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا واجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور به قلوبنا وقبورنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا ووفقنا لما في رضاك عنا اللهم اجعل القرآن عظيم أمامنا وقائدنا إلى الجنة ولا تجعل خلفنا سائقنا إلى النار اللهم اجعل القرآن عظيما شافعا مشفعا فينا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 عوراتك من حل بهم نعي اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام واجعلنا في جوارك لا يلام ولا يضام اللهم ندرا بك في نحور الاعداء ونعوذ من شرورهم اللهم اكفنا مما شئت اللهم انك عالم باعدائنا وكفى وليا وكفى بك نصيرا اللهم بالحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانسانا وحرنا وعبنا وطائنا وعاصينا امين اللهم اغفر لنا اجمعين وتوفنا مسلمين واحشرنا في زمره النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واكفنا ما همنا وما لم يهمنا من امور الدنيا والدين وكف عنا ايدي المعتدين ولا تجعلنا فتنه لقوم الظالمين برحمتك من القوم الكافرين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 هو للخلق رحمة ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وضحاه صل يا ربنا وصل ولما هو للخلق رحمة ليلة المولد الذي كان لدي نسرور بيومه وضحاء صل يا ربنا وصل على ما هو للخلق رحمة وتوالى البزر الهواتف أنقار ولد المصطفى وهاك الهناء